الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu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 di nuyu soppee almisbaax yëpp moo xam ñi nekk ci biir réew mi la moo xam ñi nekk bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu sëriñ daara yi di nuyu imaam yi waaye di nuyu jàngkati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi rawatina ñi nga xam ne waxtu wii ñi ngi ci daara ja di jàng di war a jàng njàngum fajar ak yi nga xam ne moo ci aju teel a yeewu fajar li muy metti metti am na ñoo xam ne seen waxtu jàng la seen waxtu liggéey la ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di ñaan barkeb alxuraan suñ boroom defal leen ko defal ñu ko di nuyu it ñi nga xam ne ñooy yeewu ci waxtu wi ne ci daara ja di jàng xam-xam yi nga xam ne moo ci aju di ñaan suñ borom subxanahu wa taala mu boole ñu defal barke. noonu la ñuy berale nuyoo képp koo xam ne ci jamono jii yaa ngi jóg di waaj jëm ci sa barabu liggéeyukaay ñenn ñi sax waxtaanu fajar wi lim waxtaan wi li muy teel teel dana leen fekk ci biir oto yi ñu ne ca yoon wa di xëy ñoo ngi ñaan suñ borom may ñu ñu bokk yendu ci jàmm barkeelal leen seenub liggéey te barkeelal ñu defal leen jàmm ca barab yiñ jëm di fa liggéey yàlla nañ fa fekk jàmm bu ñu wàcc bàyyi fa jàmm suñu njaboot giñ bàyyi ginnaaw it suñ borom def leen ñu yendu ci jàmm ñoo ngi nuyu soppe yépp di siyaare ñëpp di baalu àq ñëpp fas yéene ñëwaat nag ci bind bi nga xam ne ci lañ tegoon suñu baaraam nekkoon ci wàllu julli ak yi nga xam ne moo ci aju jamono ji yëpp waxoon na ne dinañ ñëwaat ci jàng farata yi ak sunne yeeg yi nga xam ne moo ci aju jotoon nañ la ko jukkil sax ci benn lim bu gaaw waaye ne woon dañuy delluwaat ginnaaw indil la tomb yoo xam ne masoon nañ ko fee waxtaane mooy waxtaane julli ci boppam waxtaane julli ci boppam ak yi ci aju yépp moo tax suñ bind bi ñu génn waxoon naa la julli ni nga xamante ne noonu la ñëwee ngir fegal jaam bi lépp loo xam ne lu ñu sib la ak mu mën a def ñaawteef nga xam ne kii julli julli gi da koy mel ne lu ko opéré fajal ko tawat jooju bu fekkee dafa nekk ci moom tomb boobu bi mu jeexee waxoon naa la ne buñ jël siwaatee danaa la wax ne la julli dafa am ay xaaj ñi koy wax aqsaamu salaat mu mel ne julli ay xaaj la am xaaj yoo xam ne bari na mën ngaa jël def ko muy ñetti xaaj bu ñuy séddale julli mu nekk ñetti xaaj dafa am goo xam ne moom la wax julli goo xam ne jullik farata la ba noppi doon fardul ayni jullik farata la ba noppi doon fardul ayni jullik farata mooy loo xam ne def ko obligatoire la nit ki mënu koo sañ a bañ a def doon fardul ayni mooy moo koy defal boppam kenn du ko defal julli googu nag mooy julli yu juróom wa hiya assalawaatul xams mooy julli yu juróom julli yu juróom farata la ci nit ki bi amee juróom-ñaari at ñu di ko ci tàggat bu amee fukki at ñu di ko julliloo par force nga xamante ne ku xas ba mësër te xàmmee def ko day nekk lu war ci yow ñàkk koo def doon loo xam ne day indi bàkkaar day dem ba génne nit ki ci diini ji ñaareelu xaaj bi moo nekk julli goo xam ne jullik farata la waaye fardul kifaaya la julli farata mooy julli goo xam ne moom itam obligatoire la ci ñu def ko waaye nag ñenn mën nañ koo def mu wàcc ñi ci def julli googu moom la wax salaatul janaasa maanaam jullee néew ab néew bu faatoo tiim googu ñu koy tiim taxaw ñaanal ko door koo dem robi ñaan googu ak julli lañu koy wax ndax julli baat bi day tekki ñaan waaye dafa am julli goo xam ne day am ay rukkoo ak ay sujoot ak ay kàbbar waaye julleeg néew moom du am ay rukkoo du am ay sujoot ay kàbbar rekk lay am moom farata ci jullit yépp bu ab néew faatoo ci koñ bi wala ci dëkk bi farata la ci jullit ya fa nekk ñu taxawe ko yóbbu ko sangu ko ñëw taxawal ko jullee ko waaye nag farata joo xam ne ñenn ñi mën nañ koo def mu wàcc ñi ci des dafa mel ne suñu borom bu ñu ko gàlloon nim ñu gàlle julli gee kon mën naa doon loo xam ne lu metti lay doon te yàlla nee na lu ma leen teg rek xam naa ne man ngeen ko ndax xam naa poids yi ngeen attan moo tax mu ne bu ko ñenn ñi taxawee mu wàcc ñi ci des ñetteelu xaaju julli gi nag mooy jullig la noonu rek la tudd moom jullig naafila jullik la mooy geneen julli gu bokkut ci ñaari xaaj yi nga xam ne du jullik farata du julleek néew yooyu jullik naafi jullik naafila wa hiya ma diwa yooyu mooy julli nga xam ne julli naafi la am na ci yoo xam ne yu ñu sunnaal la am na ci yoo xam ne yu ñu sopp la ak yu demee noonu su ko defee nag julli naafile yi am na ci yoo xam ne fardul kifaaya la moom itam mooy lu mel ni jullee néew gi ma waxoon léegi ida adaha baadu man xadara faqat anil baaxin al xaadirin bu fekkente ne ñenn ci ñi teew taxawee nañ ko mu daal di wàcc ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci def su ma lay ñëwal nag ci ñuy càmbar julli ci boppam dama lay indil julli gi ma njëkk a wax léegi bi ma ko séddalee muy asalawaatul xams julli yu juróom julli yu juróom xam nga ko ndax ñu bari ñëw nañ fekk ñu koy def ñu màgg ñoom it di ko def ba mujj dooni mag nekk ca yëg nañ ne yàllaa ko farataal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ko ko ci guddi gëm rañaane woon mu indi ko keroog la nekk farata ci jullit yépp su ko defee nag alxuraan noonu la ko defee mu nekk farata sunna si yonent bi noonu la ko defee mu nekk farata ànd ca boroom xam-xam yépp dëppoo ci amul kenn ku naan la julli juróom wuute nañ ci ndax farata la wala du farata ñëpp dëppoo nañ ci ne farata la suñu borom subhaanahu wa taala wax ci alquranul karim boo demee ca suratu Huud mu ne wa aqimi salaata tarafay nahaar wa sulafan min al leyli tarafali boog tarafan nahaar dañuy wax ne mooy njalbeen gi ak mujj gi yooyu yëpp lay yóbbaale moo tax julli julli yu juróom nekk farata ñu koy def ci bis bi ak guddi gi guddi gi am ci wàll bëccëg bi am ci wàll boo seetloo guddi gi dana ci am lu mel ne timis day fekk mu tàmbalee guddi gee fekk mu gën a lëndëm suba fekk mu tàmbalee leer tisbaar ak tàkkusaan jël bëccëg bi yàlla noonu la ko seddalee boo jëlee jullik tisbaar boo jëlee jullik suba jullik tisbaar ak jullik tàkkusaan mu nekk julli yoo xam ne day jël li nga xam ne mooy bëccëg bi moo tax suñu borom waxoon ne aqimis salaata li duluuki samsi ilaa xasa ilaa xasaqi leyli wa quraan fajri inna quraan al fajri kaana mashuuda bu jant bi jengar bi ko yàlla nee na nañu julli mooy julli tisbaar bu guddi gi di xar ca fajar ak buy xar di so nañu julli muy suba gaag timis ja waaye itam bu ñu sàggane julli fajar ndax jàngum alxuraanum fajar dafa am solo lool moo tax borom daara yi di jàng jàngum fajar am na solo ku ko man itam ubbi sa téere jàng fajar alxuraan baax na nafar ko itam jamono ya nga doon jànge loolu itam baax na kon julli juróom a ngi noonu nekk loo xam ne ci suñ borom subhaanahu wa taala farataal ci la bokk fa subhaanallahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun wa lahu alhamdu fi lsamawati wal ard wa asiyan wa xiina tusxiruun yooyu yëpp day tekkale julli ak importance bi nga xam ne moom la am ay aayalu yu baree bari la yoo xam ne su ma ko doon lim mën nañ cee yendu alhamdulillah wala bokk wa lahu alhamdu fi samawati wal ard wa sabbix bi xamdi rabbika xabla tuluu samsi wa xabla qurubiha man ngaa jàngat suñ borom naan ar wala bokk irkau wasjudu hmm. rukkoo leen te ngeen sujjóot ak yeneeni aaya yu bari moom julli juróom nag dafa am ay waxtu ay mawaaqiit ay waxtu am ay lim yoo xam ne moom la ràkk yi di am sujjóot yi war koo am ci julli gi rukkoo yi war koo am yooyu yëpp nag kii julli daa war a fexe ba mu matale ko mooy tax mu doon julli juróom yooyu lu ko moy rek leneen lay doon am ay sunna am ay farata am yoo xamante ne nii mënta wér ci julli gi bu ci amee rek julli gi tàmbulee demee neneen am yoo xam ne dañ ko cee sopp am yoo xam ne ay ngëneel la moo tax waxoon naa la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne waaja ne ko sallu kama raaytumuni usalli loolu ñun ñëpp la ko waxoon mu nekk loo xam ne kaa maanaam ñun ñëpp la ko digtal ni ñu jullee leen nu mel ne ni ngeen gis ma di ko jullee te noonu la jullee ba jóge fi suñ borom nañu diine ji mat na amut wu bees woo xam ne man ngeen koo amati al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nixmati wa raditu lakum al islaama diina julli juróom mi ngi noonu nekk kon julli gi nga xam ne dañ koo farataal wax naa la ne dañ koo farataal ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jàll ba ci xeetam wi ci guddi rañaan ga lu jiitu muy gàddaay eh, ci at ak xaaj maanaam farataal nañ ko at ak genn wàll yonent bi alayhi salaatu wasalaam door a gàddaay jóge màkkatal mukarram dem madinatul munawwara wax jooju saxaaba bu ñuy wax anas ibnu malik radiallahu anhu moo ñu ko nettali ci addis boo xam ne imaam ahmad ak nasaa'i ñoom ñaar ñëpp génnee nañ ko mu ne julli juróom de farataal nañ ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddik rañaan ga defoon ko mu nekk juróom fukki julli ñu di ko wàññi ba mu nekk juróom bañ ko wàññee ba mu nekk juróom nag ci lañu ko daal di wàññi euh, indil ñu ko juróomi julli yooyu ku ko taxawee mu wecc juróom fukki julli yi boroom xam-xam yi dañuy wax ne mooy farata bi nga xam ne moom lañ njëkk a farataal ci lislaam wa awalu farida furidat fil islaam ndax xam nga ne sahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah la ca topp mooy taxawal julli kon lee moo la ci boole waaye bi nga ci bokkee lii moo la ci bàyyi moo tax oustaz Lamine Sarr professeur dafay faral di wax ne diiney lislaam ji ay waxala ciy dugal waaye jëf moo la ciy bàyyi muy wax ju am solo waxala ciy dugal waaye jëfa la ciy bàyyi association la boo xam ne ngir nga bokk ci daa am baat yooy wax waaye ngir nga des nag doon membre ci biir dafa am jëf yooyu jëf maanaam dafa am acte yooyu posé di ko def lu ko moy rek nga tàmbali caa nu mu tuddati wax ji ngay wax ngir bokk ci mooy ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ne la bokk nga loolu nag ixtiqaadun bil qalbi sa xol bi na ko jàpp ni nga xamante ne sa làmmiñ wi da koo wax waaye nag wa amalun bil jawaari sa cër yi na ko jëf ñu ne la cër yi nuñ koy jëfee ñu ne buñ ñeexa ya ala salaa loo jàppoon bàyyi dem julli ci sa cër yi nu koy jëfee buñ ñee joxe asaka te fekk nga am lu mat nisaab rik waay tibbal ci li nga yor joxe muy asaka sa cër yi nuñ koy jëfee boo amee moyen nag am na congrès buy am buñ sañoon nga fekk ko benn yoon ci sa dund mooy aj màkk sa cër yi nuñ koy jëfee am na weer woo xam ne fukki weer ak ñaari yi dinañ ci jël wenn weer woo xam ne Euh, risim bi dana changé ni nga doon lekkee dana soppeeku yooyu mooy wax mooy jëf ji nga xam ne moo lay bàyyi ci biir moom julli nag mooy première loi bi nga xamante ne moom lañ wate ci biir association bi article numéro un mooy julli wa hiya awalu farida furidat fil islam muy lu am solo ndax suñu diine jii di diine lislaam suñ borom subhaanahu wa nañu ci yi nga xam ne moo dagan tàqaleel ñu ci yi nga xam ne moo xaraam ba yëpp leer yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñu ñaari yëpp leer na ñaar yëpp leer na yooyu leer nag te doon li ñu war a def julli da caa bokk niñ koy defee itam bokk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom woo ko jox ko ko xamal ko niñ koy defee mu yor jëmmi nit ne ñun di ko def ñuy xool muy kàbbar di rukkoo di sëlmal jiite ko nit ñi ay at nit julli ci kanamam mu julli ci kanami nit jiite ay nit julli moom donc loolee nag mooy wane ne defin wa moom leer na te du dañ di leer ba àdduna di tukki julli yu juróom moom dafa am waxtu waxtuwaat doon lu ñu yoonal sadd ko mu leer bu njëkkoon ci takk ndeer lañ koy natt di xool jant bi ni muy jengar bi ko boroom xam-xam yi dem ba tibb loolee dugal ko ci biiri montre jamono di soppeeku montre yi di soppeeku di ànd ak moom mën nañoo tàyyelloo ci ab gëstu waaye mën nañoo jàppandi itam liñ bëgg a jëf ba mu yomb ci ñun loolu nag lu am solo la kon julli dafa am waxtu bu waxtu wi jotee ki nga xam ne dafa bëgg a julli farata dafa bokk ci li tax julli gi di wér te def ay jeexital mooy mu bàyyi lam jàppoon dem julli ci dem julli ci loolu daa bokk ci yi nga xamante ne daf ci am solo inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta jullee ngi noonu kon wax naa la ne la dañ koo séddale ay xaaj limal naa la xaaj yi ma jaar ci jaar bu gaaw ci wax la ne la julli kan la war kan la war boroom xam-xam yi dañuy wax ne juróomi juróom ñii mbala boog juróom yi kum daje ci yow julli war na la ba ci njëkk mooy al islaam mooy dangay bokk ci mbooloo mi doon ab jullit bu ñaareel bi mooy da ngay amum xel maanaam du doon ku nitoo di ko ku tàggali ko akum xelam olof yi di ko wax dof bu ñetteel bi mooy day doon ku mësër mooy ku xàmmee koo xam ne baalix na hmm? loola da cay am bu ñeenteel bi mooy waxtu wi ngay julli day fekk mu jot waxtu wi ngay julli day fekk mu jot bu juróomeel bi mooy bu dee jigéen day set ci dereeti mbaax set ci dereeti wasin ñaar yooyu yëpp bu dajee ci moom rek bu boobaa day doon koo xam ne julli war na ci moom baat yooyu bu xawee diis ñoo ngi koy jéggulu olof a koy waxee noonu bu njëkk bi kon mooy al islaam doon ab jullit kon julli du war ki doonutub jullit bu doon da am xarit te jullit nit ñi di julli mu ñëw julleendoo ak ñoom it bu ñu sëlmalee da doon entraînement la doon def rek waaye bokkut ndax bala ngaa mën a bokk day am loo jiital ba noppi mooy doon ab jullit moo tax léeg-léeg ñu ne ah diw di du ab jullit waaye ni mu baaxe diw di du ab jullit waaye ni mu baree teraanga diw di waaye ni mu yiwee yooyu yëpp day manees na koo wax waaye la ca am rek dëgg-dëgg mooy doon ab jullit ba noppi door mën a def jëf ji dafa bokk li tax suñ borom nangul ko nit waman yaamal min saalihaatin waman yaamal Eh, min saalihaati min zakarin aw unsa su fekkee juumuma ci ne aaya ja tàmbulee wa huwa mu'min ji rek laa soxla mooy te fekk mu doon ab jullit te fekk mu doon ab jullit kon jëf ji yàlla nee na ki koy jëf te doon ab jullit danaa ko fay ba mat al islaam kon bi ci des mooy am xel moo tax am xel kenn waru koo foye jël sam xel foye ko ba mu yàqu ndax nit ñi dañuy foye seenum xel léeg nit foyeem xelam ci jëfandikoo lu koy yàq mën naa mu doon lu muy tux wala lu muy xeeñtu wala lu muy naan ba mujj am xelam dem léeg itam nit ñu yàqal ko am xelam teg ko ay problème mu mu stressé ba nga xam ne am xelam dana fa jaare dem am xel dafa am solo nit war koo jëfandikoo ci xalaat lépp loo xam ne lu am njariñ la bi ci des nag mooy xàmmee gi te mooy doon mu kàllaf al buluuq doon koo xam ne ku majeur la loolu danañ ko xamee ci ku góor mu gént di joteeg jigéen danañ ko xame it ci yeneen màndarga yoo xam ne boroom xam-xam yi sadd nañ ko bu dee jigéen ñi danañ ko xame ci mu gis mbaax wala yu demee noonu kon dañ ciy gis ne julli warut koo xam ne du ab jullit fala tajibu salaata alal julli warut ab yéefër waru ko donte nit ñëpp la ko suñ borom gàll waaye ki koy def mu nangul ko ko mooy ab jullit wala tajibu salaat ala majnun julli itam warut ki nga xam ne ab dof la warut ki nga xam ne gone la donte gone gi nga xam ne mësëragul moom bu ko defee am ci tiyaaba waaye war gi mu ko war ba nga xam ne bu ko ñàkkoon a def ñu ne ko li nga def jaaduwut am nga ci bàkkaar loolu la ko warewut noonu ki yàlla yónni ci ñun moo wax ne rufi al xalamu an salaasa an naim ata yastaqiisa wa an sabiyin xata talima wala ci beneen riwaaya ba xata yabluq wa an majnuun wala wa anil majnuun xatta yu fiq yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ku nekk xalima giy bind ay jëfam dañ ko ko teggil bu fekkee ñett yi dafa daje ci moom wala benn ci ñett yi kenn enregistré tut li muy def boyal nañ ko ñu ne ko ban mu ne ki nga xam ne day nelaw nit buy nelaw euh, ki doon tàppe ay jëfam ci ordinateur am day arrêté nga xam ne lépp lu mu def ci gént kenn du ko bind fu mu sànni loxoom kenn du ko bind bu géntee di waxtu kenn du ko bind ndax day nelaw waaye xam nga ne yooyu buñ ko doon bind moom tuwarkal la ki nga xamante ne it dafa nekk xale ba ba muy xàmmee mesure kenn du ko bindal ay jëfam ki nga xam ne dafa dof ba ba muy wér dof gi mu yóbbaale ki nga xam ne dafa say nga xam ne léeg mu daaneel ko mu kiriis kiriis lañ koy wax wala mu say wala yu demee noonu yooyu yépp kenn du ko bindal ay jëfam moo tax julli gi waru ko naka noonu wax naa la léegi ci ñim war ne la jigéen ji mu set ci ngànt yooyu ma wax kon loolu day yóbbaale mu set ci day day wone ne jigéen ji nga xam ne dafa ne ci ngànt yooyu julli waru ko même bu demoon julli ji julli ga du wér bu ne woon damay dem julli nit ñi di julli léeg mu am ci jotaay ñëpp jóg di julli mu rusa toog moom dong beru di wax ne dama am ngànt tax mu raaxaloo ci mbooloo mi julli ga wérut te lam defit bàkkaar la julli ga du wér te lam def bàkkaar la loolu amul benn complexe bu ci nit di am suñ borom moo ko mooñaale nit defu ci benn sabab ngir loolu tegu ci kawam bu boobaa day dem toog fële yëg ni dafa am ngànt loolu it ci jara bàyyi xel la bokk léeg nag nga ñëw ci conférence yi wala ndaje yi julli jot ñu ne nañ julli ji waaye jigéen ñi moom ni nga leen bàyyee ci tànt bi noonu nga leen fay fekkaate man damay jàpp ne xanaa mbooloo mi toog gépp nag ah nañ ma baal waaye yàpp ma ne ñëpp am ngànt waaye léeg-léeg nga makki bañ a demaat di jàppi maquillage ba di dañ te conférence bi demaat di makki yewu du ci xaj wala sax indiwoo say diw te boo jàppee danga weexaat wala ñun góor ñi nga xam ne ñoo organiser conférence bi woote julli gi waajaluñ jigéen ñi barabu jullikaay te buñ ñëwaatee duñu leen wax dara dañu dem rek julli ji ñëwaat continuer loolu nag buñ ko bëggee def ba noppi yaakaar ne li ñuy defal yàlla dina ko saf dañuy nax suñ bopp rek ndax yàlla newut góor ñi dem leen julli ji jigéen ñi nañ toog xaar leen déedéet waxul ne it dem leen julli ji man ngeen a bàyyi ba dem seen kër rek bu ngeen àggee ngeen fay julli ji nga toog ne ah man naa toog rek su ma demee sama kër julli fii moom ne fii jullee daal di toog yow li ngay def da ngaa xamul lan la léegi nag fa nga nekkoon palaasu wutukaayu tiyaaba la waaye bu nit ki moytuwut mu indil ko loo xamante ne wax dëgg yàlla ak yàq rek lay doon moo tax loolu jar naa bàyyi xel lool jar naa bàyyi xel lool dugg aljana yomb na ko waaye nag na fàttaliku ne yi koy dugal aljanna dañ caa boole mu sàmm ay waxtu julleem mu sàmm ay waxtu julleem da caa bokk ay paa yu néew rek lay dox dugg biir aljanna waaye bii ci la bokk bii ci la bokk donte nag concentration ak teewloo yu baree baree bari mën na leen a jafe buñ nekkee ñoomu neen ak yeneen ak yeneen waaye nag war nañ cee gën a mën a dimbalante kon jigéen yi nga xam ne dafa am ngànt julli waru ko ba ba muy noppi su fekkee julli na it julli ga du wér su noppee itam du ko fay wala yajibu alayha xadaauha julli googu du ko fay du fay ay julleem jigéen ju am ngant du fay ay julleem bu dee koor nag dina ko fay dina fay ay kooram euh, adis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali na ko na Aïcha moo ko laaj radiyallahu anha ne ko maa baalul xaaqit taqdi sawm wala taqdi salaat lu tax Euh, jigéen ñi wala sayyidatuna Aïsa lañ ko laaj ne ko lu tax jigéen ñi di fay koor yi te duñ fay julli ji mu ne noonu lañu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon digal ñu ñuy fay suñ koor yi waaye nag mu ne ñu buñ fay suñ julli yi mu jeex am na loo xam ne commentaire rek xóotal lu tax mu am ak lu tax ñu wax ko dalay sonal gannaaw gëm nga ne yonent bi yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa gëm nga ne du waxe bakkanam wax nañ la ne moo ko wax léegi nag pourquoi ak cest à ak je pense que yooyu dafa lay gën a dugal rek ci guuta góodut mën a tey génn te yonent bi alayhi salaatu ne woon na bokk na ci li alagoon xeet yi leen jiitu bari woon ay question bari ay laaj laaj bu bari baaxut luñ la wax rek même bu leeree faaw nga wutaat beneen question dóor ko ci am na laaj goo xam ne laaju xam la waaye li leer ba noppi di ko laaj ak laajaat da koy lëndëmal moo tax mu ne la alagoon xeet yi leen jiitu bari ay question la woon ak wuute ak seeni yonent wuuteeg yonent bi nag du dara lu du njàngaleem ba léegi rek ku wuuteeg moom wuute ngaa ko moom ñi ne la yonent bee wax nàngam nga jàpp ne bu doon tey du ko wax wala sam xel man na koo gën a rafetal wala dara yaa ngi dugg ci giraawaali wuuteek boroom xam-xam yi nag am na waaye ñoom du wuuteeg weddi waaye wuuteew déggin la ci masala te ala kulaalin ñoom ñëpp ñooy bokk benn yax boo xam ne moom la ñuy défendre ñooy bokk benn yax boo xam ne foofu la ñuy waxee yal yàlla nangul suñu julli yal def ñu dégg suñu diine mu defal ñu xéewaluk lépp lu ñuy def jëmmam ji dongu tax ndax jaamu yàlla day jafe na lool waaye def ko te yàlla tax moo gën a jafe joxe sa alal jafe na lool waaye joxe ko yàlla tax a gën a jafe maanaam daal ku yàlla dimbali woon ba looy def yàlla rek tax boo ko yëgee boo ko yëgut am nga tax àdduna am nga tax ak alaaxira yàlla ñu yàlla wërsëgale ñuy def te jëmmam ji rek tax jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ni ngeen di àndeek ñun ci jotaay bi jaajëfal baax Oustaz Alioune Sall mu baax mi